tab njiitum réew mu am 25 février 2024 askan bi nag ne loolu kese lañu bëgg ñu wane ko nag ci anam yu bëri ñaar fukki kandidaa yi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci publication liste définitive bu conseil constitutionnel ñoom li ñu bëgg mooy ñu respecter calendrier républicain bi constitution bi ak code électoral CEDEAO Union européenne ak ay partenaires u Sénégal yu bëri yu nekk bitim réew ñi ngi ñaan nguur gi mu respecter règle yi nga xam ne dañ ko teg si wàllum élection ak ni république bi di doxee ci réewum teranga bii di Sénégal waaye gouvernement bi dafa mel ni ku tëx ci woote yooyu nga xam ne askan bi partenaires yi ñu ngi koy woote ak tamit di ko artu si risque yi nga xam ne mun na am ci reportu élection bi ak bu fekkee wéyal na mandaawam ba weesu 2 avril 2024 doxalinu gouvernement bi di mandargaal ne li soxal candidats yi électeurs yi ak partenaires yi moom da cee daal di fatt noppam dialogue bi nag nga xam ne Macky Sall woote na ko digganteem ak kujje gi dafa mel ne rek benn garab buy nëbb àll bu yaatu boo xamante ne li ko lal yëpp ay ñàkk déggoo la ak ay ñàkk ànd Macky la xam ne démb ci conseil des ministre ne gouvernement bi dina jël ay mesures ngir dalal tension bi am ci jamono ji li wóor moo di ne ñu libéré yenn détenu yi ak jaloog bi dina bokk ci liy indi jàmm si réew mi waaye jaloog bi le li muy gën a nuróol mooy ay calcul ci wàllum politique ngir am temps xaajale opposition bi ak société sénégalaise bi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo mën a wallu askan bi ba crise du am mooy juróom-ñaari sage conseil constitutionnel ñoom ñoo mën a xaajale ñi nga xam ne dañoo bëgg rapport ak ñi ci àndul décision conseil constitutionnel bu munti doon li leer moo di ne ñi ànd ak ak ku jegi ñu ngi jublu si Fanta Siro ci wàllum élection ndax waa conseil constitutionnel dinañu xam nu ñuy tojee seen bopp jinax ba askan bi mën a dem si élection yi ñaar fukk fan ak juróom ci atum 2024 dara daal wóoragul ci laaj yooyu nga xam ne samp na ci jamono joo xam ne conseil constitutionnel moom si boppam ñu ngi tilimal deram